jamono yi ñu génn maire bu Touba Abdou Lahad Ka jël ab arrêté daal ne day dakkal li nga xam ne moom moo jëm ci bépp yëngu-yëngu woote yi ñuy woowee ay riim woto yooyu lee amuñu ay carte grise waaye itam mën nañu nañoo changer seen plaque jamono bu mu leen neexee yooyu la woto itam ci biir dëkk bi Touba rek la ñu mën a daw ji moom bi le mbir tax nag kuréel gi nga xam ne moom moo lëkkale mbooleem safaru taxi yi nga xam ne ñoom ñooy daw ci biir dëkk bu sell bi ci Touba def ab délégation dem ci xalifa général de mu def seen ziar waaye itam yóbbaale li nga xam ne moom moo di ñaxtu yooyu lee xam ne moom lañ demoon ci moom di waxtaanee moom mooy oto yi nga xam ne moom la ñuy wax wàllu rim nga xam ne 2003 la fi ñëw jamono yooyu sëñ Saliou fi nekk mu ànd ceeg ñun ñu di ci wut dépasse ak àddiya ba yàlla dogal sëriñ Saliou jóg fi ñu nekk feek sëriñ ji Baara keroog bi nga xamee ne jóg nañ eh, ñëw wax ko ne ko dañ ko fee bëgg a jële mu ne nañ commencé ci ruumu boppam bi ginnaaw bi ñoom ñi lee ñi ngi fësal ne amuñu benn yoon intention dakkal li nga xam ne moo di liggéey bi jamono ji li ñu fas yéenee def rek moom moo di déglu ndigal ci xalifa général des mourides mi nga xam ne nee na leen ñu dem toogi te di ko déglu waaw ñi ngi déglu sëñ bi am ci xel mu daal tamit di liggéey suñu liggéey ci yar ak i teggin waaye daal liñ bëgg nit ñi xam ko mooy képp ku ne woon ndigal li ndigalul sëñ Muntaxa la xalifa général des mourides na ngeen xam ne digal li moom jógewut ci moom ndax nee na ko tey yëgu ko ëllëg ñoom chauffeur si di fësal ne dara nekkul ci ginnaaw lii ku dul idika mi nga xam ne moom moo jiite regroupement transporteurs yi nekk ci dëkk bu sell ak maire bi di Abdou Lahad Ka dara waralu ko lul seeni intérêt personnel tey buñ ñëwee bëgg ko fee jële te ñi ko fi bëgg a jële dem ci sëriñ bi di wax ak moom te li ñuy wax ak moom lépp li ci nekk mooy ay oto yoo xam ne ñoo fi nekk ndax oto yi yàgg nañ fi kenn mosu cee wax bi fi taataa yi ñëweeg léegi ñi ngi ci wàllu rim yi loolu li ma gis mooy idika kenn jiituwu ko ci ak latka ak lu ci mënti xew jamono ji ki yor seen kàddu di Mamadou Ndiaye mi ngi fësal ne Serigne Mountakha wax na leen ñu dem toog yi te déglu ndigal jàpp nañu ne daañu dakkal lépp li nga xam ne moom mooy jàpp wata yi di watay riim yi